أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان الرباني في الكنوز العشرة في الفصل في الكنز الثاني من الكنوز العشرة وفي فصل التجلي والتعدد والتبدل والتمثل والتشكل و... قال الله تعالى في الحديث القدسي أثنى علي عبدي أي أثنيت أثنيت على نفسي في صورة عبدي إلى آخره Eh, ci jotay bi yeesu wala bok yeesu gisul nañu ci ne borom subhanahu wa ta'ala eh, ci al-imam kunuzul ashara ci al-kanzu sani ci al-faslu at-tajalli imam at-ta at-ta wata'abud yeneen yi tegu moy ne wata wala moy ne bor buri allah subhanahu wa ta'ala du melaw manam du feñu ci ben melo ñaar yoon naka nonu du feñu ci ben jëm ci ben manam feñu wen ñaari jëm yu wuté wala ñaari entité yu wuté euh wuté ñaari kaddu duñu roté ci mom ci benn bat ci benn mana law waaye tejeeli bu nek bu tukke ci mom rek dafa am forme bu muy jël manam feñu way bu mu am rek amna ci forme bu bu muy jël jam bu nek sa yu ko borom bi di feñu subhanahu wa ta'ala dafa am melo wu ko borom bi di feeñoo ak euh, te it xool bu nekk am na kàddu gu ci nekk te kàddu gu ci nekk am na dégg-dégg voilà te amul jeexital maanaam feeñuwaayu borom sax amul fu mu jeex amul njombartal amul fenn ci maanaam meloom yi amuñu njombatal te it kàddoom yi jeex. subhaanahu wa taala borom subhaanahu wa taala dafa ne moom mooy ki njëkk wal awwal wal aaxir wal zaahir wal baatin mooy ki njëkk mooy ki mujj mooy ki feeñ moom mooy ki nëbb maanaam kon lépp loo xamante ne maanaam moom nekk def ji yëpp moom moom la borom subhaanahu wa taala ndax comme ni ñu ko gisoon alif laam gi nekk ci kanam ci al awwal al aaxir al zaahir al baatin maanaam article défini boobu day tegte ne moom bokkaalewul ak kenn ci mbir moomu ndax su doon ne moom dafa feeñ leneen feeñ danaan moom. huwa zahirun la moom dafa feeñ waaye comme que dañu moom mooy ki feeñ mooy mooy ki feeñ ci lépp lu feeñ waaye tamit mooy ki nëbbu ci lépp lu nëbbu waaw subhaanahu wa ta'ala euh, maanaam loolu beneen maanaa beneen mbir la en <coughs> boo xam ne bu ma tabaay xel la mooy euh, aarif billahi maanaam ñoom dañuy déggee alxuraan dañoo jàpp ne alxuraan façon bi gën a yomb pour nga comprendre ko mooy ni mu nekk maanaam ni baat bi ñëwee noonu rek nga comprendre ko noonu maanaam li gën a réere ñu bëri bëri ci alxuraan mooy ne dañ koy déggee noo xamante ne bokkut ak ni mu ñëwee maanaam noonu lañ koy déggee loolu bokk na ci li gën a bëri ci ñuy réer ci alxuraan ci lu leen réeral maanaam mais boo xamee ne comme ni borom subhaanahu wa comme ni mu waxee nii maanaam exemple bi benn exemple la ci am na yeneen exemple yu ñëw

Euh, ki feeñ moom moom moo feeñ maanaam boo xamee ni moom moo feeñ nag nga comprendre que ni li feeñ yëpp du dara lu dul ay feeñ waayam moom borom subhaanahu wa moom moo làqatu moom moo nëbbu moom moo nëbbutu ci ginnaaw lépp lu nëbbutu voilà te lépp la xam woo bi kulli shay'in alim voilà te it gisoon nañ tamit aaya beneen subhaanahu wa ta'aala maanaam kon boo dañ ci xamee ni yàlla moo feeñ ci feeñuwaay yi moom moo feeñu waay yi ba pare feeñu la ci biir loolu yëpp moom mooy ki nëbbatu wëllif la maanaam gisoo ah. euh, te it moom mooy njëkk mooy ci yow lépp sa lépp moom la gisoon nañ ne borom subhaanahu wa dafa waxoon ne moom borom bi dafa àtte ne doo leen jaamu keneen ku dul moom voilà loolu tamit beneen maanaa la ci mooy ne àtte na ne keneen ku dul yàlla yéen dool ko jaamu maanaam même boo leen demee bëgg jàpp keneen sax en réalité jaamu woo leen loolu rek yàlla ngeen nekk di jaamu ndax moom mooy laqatu ci ginnaaw loolu yëpp hmm. wax na tamit ne fa ay namaatu wàllu fa fama wajhullah foo leen wëlbati ko rek foofu la foofu la ah, xar kanam yàlla nekk maanaam mooy lan mooy foo leen wëlbati ko yàlla ngeen di jàkkaarloo loolu tamit boo ko comprendre ci zahir bi rek mooy foo ne rek li ngay jàkkaarloo ki ngay jàkkaarloo fi lépp yàlla la maanaam mooy ay feeñu waayu yàlla la ci ay turam ak ay meloom pas nekk-nekkam pas essence am pas zat waaye ay lan turam ak ay meloom parce que maarifa lépp luñ ciy wax te loolu duñu dañ diko fatali maarifa lépp luñ ci wax concerné wul lan zat lan la concerné al asma wa sifat tour yi ak melo yi la concerné concerné wul lan nek nekam loolu mom motax borom subhanahu wa ta'ala manam min haythu tajalliyatihi wala min haythu martabatihi wala manam buñu wax yoy yep ba duñ ko wax min haythu zat buñu wax yi ñi wax yep du zat bi lañu wax parce que zat bi dafa nek lo xam ne dafa nek ci itlaq dafa nek lo xam dafa absolu dafa nek lo xamante dafa inaccessible kenn mënu ci jot invisible impénétrable inaccessible impalpable intangible indéfini illimité absolu voilà yooyu yëpp la am lool moom ak la motax wax wax daal du ci wax ci li ñuy wax moy as sifat tu meloy al asma wa sifaat tur yeeg melo yooyu lañuy wax loolu moom moo tax léegi nag ñi comprendre mbir yi ci ne zaat la ñuy wax faaw dañuy dugg ci lan ci yeneen xeeti euh, problème maanaam yeneen xeeti euh, euh, ay bokkaale yeeg ah ay wax yoo xam ne amul njariñ wala amul sens amul amul maanaa ak ay ñàkk teggin waaye bu ñu xësee ba comprendre que ni yëpp ay tajaliyaat la borom subhanahu mooy feeñu. maanaam mooy day manifesté wu à travers lépp bu xamee ni ci loolu la ñuy wax rek yi ci des yëpp day daal di yow yow ma maanaam te maanaa bi loolu rek la. voilà. Euh, euh, gisoon nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ li mu wax ne Euh, borom bi subhaanahu wa taala azza wa jalla dana wax yowmal qiyaamati benn jaamam ne ko yow sama doomu aadama bi feebaroon naa te seet si wuloo ne ko yow sama borom naka laa lay seet seet te yaay borom mi indi fi maanaam muy wax ne moom day feeñu à travers lépp moom day feeñu ci lépp mu ne ko dama feebaroon yàlla ne day borom bi day wax doomu aadama ne ko yow doomu aadama man feebaroon naate te seet si woo mu ne ko man naka laa seet seet te yaay borom mi indi mu ne ko diw sàngam sama jaam la xanaa xamoo sama jaam sàngam feebaroon na te seet si woo soo xanaa xamoo soo ko seet si woon ah ma fekk fa moom maanaam kon day gis tajalli bi feeñ waay mu ne ko yow doomu aadama euh, ñaan naa la nga leele ma maanaam nga may ma ma lekk te joxuma ma lekk mu ne ko mais yow sama naka laa lay joxe nga lekk te yow yaay borom mi ndefi mu ko euh, hmm? mu ne ko diw sàngam xamaa xamoo ni diw sàngam sama jaam sàngam ñaanoon na la nga lekk ñaanoon na la lu mu lekk te joxoo ko woon mu lekk xanaa xamoo ni soo ko joxoon mu lekk doon nga fekk loolu fii ci man nga gis ne ah, Euh, loolu tam benn xeetu tajalli la mais gisoon nañ ni tajalli bi muy def ci ki feebar moo ëpp doole tajalli bi mu def ci ci kii ci ci ci soxla lekk ak naan comme niñ ko gisee woon si jotaay bi weesu loolu waxoon nañ ci ah mu ne doomu aadama ma ñaan maanaam nanduloo woon naa la ne woon naa la nga may ma ma naan nga bañ mu ne ko mais eh, yow yàlla nan laa lay mm, maye nga naan te yow yaay borom mbindeef mu ne ko sama jiw sama jaam sàngam naanoon ñaanoon na la ndox maanaam nga naan te joxoo mu naan xanaa xamoo ni soo ko joxoon mu naan doon nga fekk loolu fi man maanaam yooyu day wane day day day day wane ne maanaam amul dara lu jot a xeeb voilà comme niñ ko gisee ci yeneen na xadis maanaam ak yeneeni i euh, wax yoo xam ne borom xam yàgg nañ ko di leeral di ko wax di muy di koy fàttali mooy ne par exemple sarax boo joxe te yàlla tax balaa moo tegu ci loxol ki nga jox tegu ci loxo yàlla ba pare. Hmm? lu tax parce que tegal lii la maanaam feeñ waaye yàlla la borom subhaanahu wa feeñ ci lépp voilà comme masalan fi mu naan euh, euh, fa sayarallahu amalakum wal mu'minuuna i'malu fa parce que yàlla dina gis seen jëf waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam dina ko gis wéy gëm ñi tamit dinañ gis seen jëf yi maanaam ci loolu ci nga xamee ne ah, ñun ñëpp jëf maanaam yow sooy jëf bu fekkee ne da ngay def nit ñi di la maanaam di gis nga di wan jëf ji ngir lu baax maanaam ngir lu baax maanaam loolu moom mooy boroom subhaanahu wa nga koy wan parce que yàlla mu ngi feeñ à travers ñooñu yooyu yëpp la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la loolu moom moo tax bis boo comprendre du zaat bi sifaat yi la boobaa du nekk bokkaale du nekk shirk du nekk euh, ay xulul ak ay ittihaad ak yooyu noonu nga xamante ne ay incarnation ak ay xeetu maanaa yu yu yu yu yi nga xamante ne euh, parce que maanaa bi bokkul ak comme bi chrétiens yi di wax chrétiens yi ñoom dañoo jàpp ne xam nga kii ñii moom mooy na yow yàlla na feeñ à travers ñoom ba pare di la feeñoo lii nag bokkul ak nit ki ñeneen ñi jàpp ne masalan comme chrétien yi jàpp ne yàlla ci boppam maanaam moo dugg ci nit ki nekk maanaam kooku ci boppam nekk yàlla loolu du benn comme ñu mu xégal li ñuy wax ak waaw nga xam te ne comme moom masalan jàpp gi mu jàpp ne euh, euh, diine yi gën a baax ci diine ji mooy diine yi chrétien christianisme parce que moom lay day dafay tax ne yàlla comme que yàlla day incarné wu ci biir nit ki day wàcc dugg ci biir nit ki incarné wu ci moom donc moo koy may doole moo ko may moo koy permettre tamit muy mën a créer am créativité am euh, euh, benn domination ci àdduna bi au moment où def na ko ci yent yàlla Isa te comme moom nit la ce qui veut dire mën na ko def ci yeneen nit ñi ci des ñëpp maanaam à partir de kon nit ki maanaam euh, incarnation yàlla moo incarné wu ci biir nit ñi maanaam loolu théorie la boo xam ne baaxul ah voilà maanaam boobu théorie philosophique la boo baaxul du tout baaxul boobu baaxul maanaam euh, euh, en fait euh, <laughs> lënt lënt boobu am ci chrétien yi moo am ci moom ku mel ni moom waaw looloo tax bi looloo tax bi nit ci ñëwee moom dafa ne yàlla dee na maanaam moom ko soxla wunu maanaam yow li nga wax nii maanaam comme li Hegel wax maanaam soxla wunu yàlla am pour loolu mën a ne kon nag léegi nañu rey yàlla yàlla dee na maanaam li mu bëgg a wax maanaam mooy yàlla soxla yàlla am pour loolu mën a ne nit seen bopp ñoom ñoo am kàttan gi am xel am leer bu nekk ci ñoom am am am créativité boobu maanaam et bu ñu dindi woon yàlla ci suñu dund lan lay demee maanaam da ngay gis ne kon mentalité bu bon daa iman daa iman mentalité bu bu ko gën a bon mën naa ñëw Euh, euh, dominer ko maanaam te loolu moom moo am seen diggante moo tax euh, maanaawu maarifa tamit dafa laaj mu nekk lu leer lu ñu xam lu tegu ci alquran ak sunna waaye bis bu commencé tegu ci ay ay ay ay ay xel maanaam ba pare ñu tuddee ko xaatir te fekk lu xaatir bu baax maanaam xaw xaatir seytaane la maanaam boo xam ne ci seytaane la jóge xel xalaat maanaam bu commencé di tegu ci lu mel noonu nga bëgg koo basé ci loolu rek maam da ngay daal di yàq loolu nag moom moo dal ah moom moo dal ñu bëri bari ci ci di ah, ci domaine maarifa maanaam euh, ba ba loolu moom moo tax daanaka ñooñu ñooñu la ñu tuddee zindiq maam nga xam ne da ngay nekk ci domaine maarifa di ci wax ay toj-toj rek yaakaar ne yaa ngi wax euh, maarifa bu kawe fekk li ngay wax yëpp ay bokkaale la. daan nañu yàlla sàmm. maanaam kon ñu xam ne yëpp ci côté al asmaa wa sifaat la ñu wax waxuñu ci zaat ñaar yooyu lu mat a xàmmee la mu ne qaala allahu qaala wax na buri allah buri àllah taala ji kaw jëmin hadith al qudsi ci hadith al qudsi bi ne alayya abdi sama jaam day lan na ma maanaam bàkk na ma kañ na ma maanaam mooy baamu na tagg yi may tagg loolu mooy as sanaa sanaaw mooy baamu yi nga xam ne moom ngay baamu ci tagg gi nga xam ne moom ngay eh, eh, tagg hmm? eh, muy muy leeral ci nodd badi page mu ne huwa juz'un maanaam benn xaaj la من الحديث القدسي تحدث القدسي بو الشهير بو بو الذي مي خامل رواه صلوه مالك امام مالك في الموطا ومسلم تامت في صحيحه وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه نيوم نيب سين سنن واحمد من حمل في المسند والبيهقي مام تامت سنن وعبد الرزاق والصنعاني والحميدي والدارقطني ابن حبان وابن خزيمه نيوم نيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وحنا بور الله تعالى ديك قسمت خاجلنا الصلاه جل مانام ديم تي دوغول موم موي سوره الفاتحه يا حديث بي غيسنا صحيح البخاري غيسنا صحيح البخاري voilà ah, amul bukhari solo nako tamit Euh, mu ne kon xaajo danaa julli bay maanaam muy saar boobu nga xam ne moom la ñu tuddee as-salaat suuratu salaat dafa bokk ci turu faatiha bay nii sama diggante ma bay na abdi sama jaam bi nis fay ni ñaari xaati wala abdi ñeel na sama jaam maasaala lam laaj fa iza qaala soxee abdu jaam bi alhamdulillahi rabbil alamin su ko waxee qaala allah bur yàlla taala day wax ne hamidani abdi sama jaam bi sant na ma wa iza qaala arrahmaanu rahiim su waxee arrahmaanu rahiim qaala allah taala bur yàlla danaan asna alayya abdi sama jaam bi bàkk na ma kañ na ma kañ na ma maanaam maanaam baamu na taggam ci man hmm? maanaam foofu mooy parti wa iza qaala su waxee maalik yawmi diin qaala day wax ne majjadani abdi sama ba sama jaam bi tudd na sama tabe ak sama màggaay maanaam bàkk na ma wa qaala marratan maanaam am na ci yeneen riwaaya lu wax fawwada ilayya abdi fawwada joyal na ilayya cam ci man léppam abdi sama jaam sama jaam joyal na léppam ci man fa iza qaala su waxee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 Euh, borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam le fait que jaam bi di tàgg borom bi subhaanahu di ko sant ba pare di baamu cant googu ci moom ah, maanaam ay li ñu tekk mooy as naytu man de tagg naa ah baamu naa sama cant ak sama tagg ah ala si sama bopp fii suurati abdi ci sama jëmmi jaam maanaam yàlla ci boppam yàlla ci boppam moo lan moo sant boppam waaye jaare ko ci jaam bi moo tax yàlla mooy kii tudd mooy ki ñuy tudd loolu la doon wax ne boo tuddee yàlla na xam ne yow yàlla moo tudd boppam jaare ko ci yow loolu lay tekk maanaam kon yàlla mooy sikar bi mooy ki ñuy sikar waaye moom mooy kiy sikar voilà voilà euh, am na maa ngi gis seen kii Cheikh Ahmed Ismaïl mu naan benn bés dafa waxtaan ak Cheikh Salahuddin radiyallahu mu ne ko mu ne ko xanaa xamoo ne yàlla kenn mënu koo sikar lu dul ci ndigal moom su la joxul ndigal bi doo ko mën a sikar nee na maa ngi naan sama xel mais loolu lépp la maanaam lu tax mu bett ci sikar parce que yàlla kay lu amul ndigalu yàlla du mën a ne mu ne waaye maa ngi ko bëgg a laaj mais ma ne non mais soxlawul dalil parce que moom ci boppam moom maanaam moom rek jëmmam rek dalil la quoi maanaam moom lu fekk mu wax ko rek loolooy dalil nee na bi ñu paree juste noonu ñu daal di taxaw di julli gee moom mu jiite Cheikh Salah bi mu jiite daan ne daal di kàbbar tari Faatiha daal ne fii buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu maanaam ci néegi yàlla joxe na digal ci ñu yëkkati kàddoom ñu yëkkati tamit jumaa yi waaye ñu tudd turam mu naan ne ah c'est vrai kon dalil baa ngi maanaam ci ndigal lay amee maanaam ndigal borom bi subhaanahu wa Euh, maanaam borom subhaanahu wa te loolu te loolu euh, moom xam nga boo seetloo jëmmi wax ji mooy juste liñ lay wax ci euh, charte bi ngay amee njariñ bu màgg gi salaat maanaam mooy le fait ngay tudd yàlla ngay tudd yàlla ngay tudd ngay ngay julli ci Yonent bi sallallahu alayhi mais tout en sachant que ni en fait du yow yaa tudd yenent bi sallallahu alayhi wasallam julli ci moom mais yenent bi ci boppam sallallahu alayhi moo julli ci boppam mais ci sa làmmiñ yow maanaam loolu la voilà voilà mooy bi annahu al-musalli iz kulluna min nuurihi mujalli voilà moo ci faakatu tulaq voilà waqaddiran bi annahu musalli lu tax iz kulluna min nuurihi mujalli natta leen ne moom yeneen bi sallallahu moom ci boppam mooy julli ci boppam waaye loolu lan moo koy leeral bu ne ndax iz ndax kat kulluna ñun ñëpp min nuurihi ci leeram yi rek mujalli lañ feeñee moom moo feeñ ci leeram ci ñun ñëpp sallallahu maanaam bu boobaa dañu daal di xam ne moom day daal di mën muy bu julli mooy julli ci boppam. sallallahu alayhi wasallam maam yow danga nga nattale lool te bu boobaa danga mën a nattale ne ñu mu raisonné noonu julli noonu ci boppam noonu la raisonné ci mboolem particules yi nekk ci univers bi yëpp existence bi yëpp noonu la nekkee en kii maanaam synchronisé synchronisé wu ah, di di di di sikkar di di di julleendoo ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaw comme ni nga xamantene tamit soy julli tay boy taaya boy yexse ba assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh manam mom nga nuyu mais que mom yeneen bi sallallahu alayhi wa ci sa làmmiñ moom la sa làmmiñ la utiliser manam pour fay aduna bi yeb ak bopam assalamu alayna wa ala ibadillahi salahan voilà fay boppam fayaale aduna bi yeb mais ci sa làmmiñ yow voilà moo tax da ngay jàkkaarloo moom daay man mu ne kon nag fallaahu buur yàlla loo ñeel na ko az-zuhuru ak feeñ fil mazahiri ci feeñ waay yëpp te jalliyan dégg mooy liñ doon wax léegi ci feeñu la zaatiyan du ci nekk-nekkam du ci essence am la koy defe waaye ci feeñu waayam la loolu lu mënta bàyyi xel la mooy li ñu doon wax léegi Euh, ak problème yi nasaraan yi am ci ni ñu déggee mbir mi maanaam nasaraan yi problème bi ñu am globalement loolu la maanaam essentiellement problème bi ñu am li ko indi mooy ñàkk comprendre masala bi voilà maanaam yent yàlla Isaa sasam day waxee ci turu yàlla ñoom ñu jàpp ne kon moom ci jëm boppam moo yàlla yenent bi sallallahu yent yàlla Isaa alayhi salaam yàlla dafa dafa feeñee ci moom ah di def ay mbir yoo xam ne yàlla rek ko man ndax dafa feeñee ci moom ah ñoom ñu jàpp ne kon moom ci jëmmi boppam mooy yàlla déedéet parce que yàlla day feeñee ci lu ne mi ngi mel ni yéen yàlla Musaa sa salaam yàlla day wax ak moom fan ci garab gi garab gi waa montagne garab gi ak tàkk-tàkk bi ci ne. maanaam yàlla dakaa feeñee à travers garab yeeg tàkk-tàkk bi ba pare muy wax moom inna ni ana allahu rabbul alamina man bi yàlla la maay borom mbindeef waaye yàlla ci boppam du garab gi du tàkk-tàkk bi waaye dafa waxe à travers tàkk-tàkk bi am na différence euh, am na voilà ñun ñëpp am nañ ko profil yi ñuy am profil fi Facebook yi WhatsApp yi ainsi de suite avatar yi mu ngoog maanaam ñun ñëpp dañuy wax à travers loolu suñu defee vocal ñu wax mu arrêté yow nga déglu ko ne man maa wax nangam te pourtant yow jamono ji ngay wax ne man maa wax man waxatu ko noppi naa waaye saa waaj yi maanaam li ma wax nga dégg ko saa yoo ci bësaatee mu waxaat la waxoon lan moo tax parce que sama wax man dama feeñ à travers wax jooju loolu lay tekki yàlla day feeñ ci lu ne loolu lay tekki du ci jëmmam nekk-nekkam parce que ma walilaal masal man maa ngi nii waaye tey ki nga xamante ne moom maanaam lii tey koo koy dégluwaat mën na koy déglu fekk amaan na man maa ngi nelaw amaan na sax nekkatuma fi dundatuma nekkatuma ci kaw waaye moom mi ngi di ko dégg ah parce que lan moo tax parce que man maanaam sama kàddu moo feeñ fii du sax sama kàddu moom la dégg déedéet sama feeñu waayu kàddu la dégg manifestation sama kàddu la dégg mais déggul sama kàddu parce que lu tax parce que mbir mi ci ay manifestation la du ci sama jëmm yàlla tamit noonu la walillahi matal ala loolu moom soo comprendre di nga mucc ci bokkaale yeeg ak lënt-lënt yi nga xamante ne moom la euh, ñenn ñi di am yenn zanaate xëy di am hmm? voilà. is ndax lan am na zaatahu naka nekk nekk moom bur yàlla taalaa ji kawe jallat kawe na lool anit taqyid ci wëllif ñu koy mën a tënk fil aghrad ci namm-namm yi maanaam ah, ak al al aussi mooy gaar gaari yàlla mënta tënku ci ay objectif ci ay mbir yu précis yàlla mënul loolu maanaam pas mënu ko astaghfirullah maanaam kawe waayam ëppante naag ñu koy tënk ci loolu wala voilà gabawaayam ëppante na ak ñu koy tënk ci ci loolu euh, euh, naka noonu aaraab yi tamit mooy aaraab mooy gaar-gaar loolu yaakaar naa wax nañ ci jot nañ ko jot nañ ko wax lu bari bari aaraab yi mooy gaar-gaar mooy phénomène yi yàlla mënta maanaam Euh, yàlla defu ko defu ko tënk ci phénomène ci ay phénomène loolu maanaam day feeñ ci phénomènes yi subhaanahu wa ci événement yi mais moom ci jëmmi boppam ah ëppante naa ak maanaam ak di tënku ci ay phénomène ak ci ay ay ay ci ay namm-namm ay yeneen maanaam comme loo xamante ne phénomène maanaam a a arab mooy mooy gaar-gaar mooy lépp loo xamante ne mënut a taxaw moom kese maanaam faaw mu am ci lum taxaw kenn mënu koo taxawal ci moom kese masalan njool gàtt ñuul xees yooyu mënut a taxaw moom kese faaw mu am ci lu taxaw voilà <laughs> voilà waaw faaw mu am ci lu taxaw voilà neex naqari yëpp faw ñu am ci luñ taxaw ñoom rek rek rek rek mënuñu ne yàlla nag daf ëppanteeg loolu waaye yàlla day feeñ ci lépp loo xamante ne mel na lool bal li fi nekk laxaa ñeel na ko al itlaaqu ak joyal ak taamu gu mat sëkk kullu zalika lii yëpp ñu wax fii laa yu zaaqu deefu ko mos illaa lu dul musaada ci jàkkaarloo maanaam ci contemplation lañ koy mën lañ koy lañ koy lañ koy mose voilà maanaam nga nekk ci état d'esprit wu contemplation voilà voilà contemplation boobu mooy lan témoignage contemplation wala jàkkaarloo ak di bàyyi xel ci biir jàkkaarloo bi voilà mooy nga gis ah, yàlla day ah subhaanahu wa moo feeñ ci lii nangam nangam maanaam voilà ci nga koy gisee sinon rek da nekk ci ci ci négligence voilà ci distraction waaw distraction bu mag kon lii aju ci wàllu tajal li alhamdulilah jeex na maanaam fi mu toll normalement euh, yi ñu jot ci tajal lii ba fii maanaam bi tàmbalee bunt bi ba léegi nii normalement léegi war nañ comprendre lan mooy at tajal lii war nañoo comprendre kon lan moy at li manam moy ay manifestation légui ñu wara duggu ci benen manam bi mooy at-ta'addudu mooy limu voilà voilà la pluralité la multiplicité voilà limu euh, il faut ñu xamné boudé ci turu yalla yi ak melo yu taaddu amna ci yàlla zaatam moom moo nekk lenn loo xam ne moom lenn kese la du ñaar du ñett d'ailleurs loolu la manifester ci ñun ñun tamit ni ñu nekkee ci suñu zaat kenn lañ maanaam tey fi mu toll dafa bokk sax d'ailleurs ci mabaadi yi maanaam mooy al umurul badahi badihiyya yi mooy badihiyyaat yi dañ leen def badahiyaat awwaliyaat mm-hmm. euh, al mudaruri yi mm-hmm. moy lo xamantene voilà évidence la mooy ne ñun ñi non seulement existé nañ manam nit ku nekk bo togué di xalat sa bopp non seulement bokk na ci évidence <laughs> manam évidence moy lo xamantene ne preuve <laughs> voilà <laughs> laajul preuve képp ku la bëgg wax sax ne lii lan moy preuve manam yow ci sa bopp da ngay jommi ci ak euh, waaw ci ak ñàkk yeewoom maanaam loolu mooy évidence <laughs> voilà mooy loo xamante ne yow ci sa bopp boo bëggoon a sa bopp ci ne amul dangay am problème voilà loolu moom mooy évidence maanaam kon dafa bokk ci évidence yi mooy ne ñun ñii non seulement existé nañ mais ñun ñii kenn lan maanaam kenn lan <laughs> duñu ñaar duñu ñett duñu ñeent duñu juróom waxuma laa nombre bu gën a bari lool mais par contre suñu melo yi maanaam suñu attribut suñu qualificatif yi suñu valeur yi aussi bien aussi en tant que doomu adama suñu défauts yi du ben dañu bari voilà dañu bari dañu multiple borom subhaanahu wa ta'aala ci zatam kenn la mais ci sifatam non seulement kenn la ci ay sifatam mais maanaam mooy ci ni mu mele maanaam moom kenn la ci ay sifaatam sauf que sifaat yi ci seen bopp ñoom ñoo limu ñoo bëri te amuñu nombre bu limité parce que yàlla dafa nekk koo xam ne léppam itlaq la amul amul dafa absolu léppam dafa infini illimité voilà mm-hmm. innombrable voilà waaye yeneen ci alayhi salaatu wassalaam ñoom tamit noonu lañ mel sauf que ñoom dañoo am capacité bu ñu am maanaam yeneen ci alayhi salaatu salaam dañoo am capacité wu ñoom ci seen bopp di dupliquer wu donc di multiplier wu multiplier wu voilà nekk ay ñeneen en même maanaam ñu tey fi mu toll kenn laa fi man man au moment où man maa ngi fii maanaam maa ngi nekk ma ci ay place yu wuute loolu tam daa bokk ci badahiyaat yi maanaam ci ay évidence maanaam mooy nekk mu fi nekk fee maanaam man rek la man maa ngi fii bu ma xasee ma nekk fii loolu ci ay <laughs> loolu kay ci badahiyaat yi la bokk waaw loolu daa bokk ci évidence yi <laughs> eh, mais. Euh, loolu moom mooy mais yeneen yi alayhi ñoom dañuy mën dañu am loolu alayhi salaam loolu tam beneen spécificité la bu ñu am moo tax mu ne al anbiya yeneen yi alayhi salaam al kiram ñu tedd ñi lahum ñeen la leen at ta'addud li mu fi suwari ci jëmm yi maanaam dañu am dañu nekk ni mais am na jëmm yu bari yu ñuy mën a ne kama kem ni nga xam ne xadasa noonu la xewoon fil isra wal mi'raj mooy ci fil isra ci rañaan gi wala mi'raj ah, ah, isra mooy tukki guddi gi wala mi'raj ak rañaan gi xay su fi nga xam ne raa gis na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ba'dul anbiya ñenn ci yeneen yi alayhi salaam fii tariqihi ci yoonam ilal baytul maqdis ci baytul maqdis mooy Jérusalem summa topp raahum mu gisaat leen kulluhum ñoom ñëpp fii baytul maqdis ci baytul maqdis ci boppam wa salla bihim mu jullee leen summa topp raahum mu gisaat ba'duhum ñenn ci ñoom fi samaawaat ci asamaan yi kon lii fa hada lii ta'addudun ab limu la fi zuhuri ruuxaani ci feeñu ruux yi lil ambiya ñeelu yenente yi alayhim salaam hmm? laa innahu maanaam mbir mi nekkul ne ñoom fil ard dañoo nekk ci suuf si su ma topp rufe u ñu yékkati leen ila sama ci asamaan du loolu de bal li fi nekk saata kaanu jamono jañu nekkee woon fil ard ci suuf si kaanu ñi ngi woon aydan ba tey fi samaay ci asamaan si bi xayri intiqaalin ci lu amul ak toxal bay na makaanin ci diggante bërëb wa makaanin ak beneen bërëb amul loolu li annahu ndax moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ra'a dafa gis arham aw arwaaxahum seen ruux yi amma ajsaaduhum amma maanaam ajsaaduhum seen jëmm yi ñoom fa ñoom fii amaakinihaa ñi ngi seen place yi maanaam fañ leen rob seen jëmm yi fa la nekk mais seen ruux yi la gis sauf que seen ruux yi dañuy jël forme yor jëmm ñuy gis ñu leen di mën a gisandoo place yu wuute en même temps léegi mu ngi wax ci baadu paas yi maanaam lenn lu ci nekk ci partie boobu mu ne ci baytul maqdis le fait que mu gis leen fa mu ne axraja ibnu abi shayba ibnu euh, abi shayba wa muslim an-nasaa'i ibnu mardawayh wal bayhaqi euh, ci kitaabi xayaatul anbiya ci téere boobu la particulièrement la ko indee wa ahmad abu ya'la nu ibn wardawayh ñoom ñëpp an anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam maratu romb naa laylata guddi nga xam ne usriya bi jullit maanaam na ci lañ ma tukkeel ala musa ci yent yàlla musa alayhi salaam qa'iman mu taxaw yu salli di julli fi qabri ci bàmmeelam donc moom mi ngi taxaw ci biir bàmmeelam di julli yenent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ko juróom benneelu asamaan si bi ñu wàccaatee ci baytul maqdis di di jug di ko jiite julli gis na gis na ko maanaam kon en même lan voilà voilà amma julli gi mu jullee jiite julli mu ne xadis salaat yi julli jiitu julli ci noonu la baal ba tey bil anbiya ci yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam alayhi wa alayhi salaatu wassalaam axrajahu solo na ko ibnu jarir ibnu jarir mooy at-tabari wa ibnu mardawayh wal bayhaqi fi dalaa'il mooy ci dalaa'il an-nubuwwa an anas ibn maalik radiyallahu anhu wa axrajahu solo na ko ba tey at-tabaraani fil awsat mooy mu'jam al-awsat wa ibnu mardawayh wa an abi layla radiyallahu anhu wa axrajahu solo na ko ibnu sa'd ah, moom tamit wa ibnu asakir ak abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa ibnu abbaas ak sayyidina abdullah ibn abbaas radiyallahu anhu wa sayyidat ummu salamata ah ak sayyidat ummu salama ummul mu'minin sayyidat aisha ummul mu'minin ba tey ak sayyidat ummu hani radiyallahu anhum ajma'in ñoom yëpp solo nañu ne yonent na la saxaaba imaam yonent yàlla sallallahu ca baytul maqdis mu jiite leen julli ah, léegi ah, beneen bi nga xamante ne moom la wax ne gis na leen gis nañ leen ci ñoom ci asamaan yi mooy xadisu mooy xadis bi nga xam ne mu naan suma topp araja bi naa muy rañaan a ñun ila sama is sadisa ci asamaanu juróom-benneel bi fastaftaha mu daal di laaj ubbi Jibril Seydina Jibril sa salaam mu ne fa iza ana ah, fekk nag maa ngi jàkkaarloog bi Musaa yonent Yàlla Musaa alayhi salaam fa raxaba maanaam mu tatagal ma wa maanaam eh, wa daa lii mu ñaanal ma bi xayrin ci ci yiw loolu moom rawaw solo na ko Ahmad maanaam wa Muslim النسائي عن انس بن مالك رضي الله عنه واحمد تبي صلى نقول البخاري ومسلم والنسائي عن مالك بن صعصعه رضي الله عنه ما نيم صلى نك حديث فوق كون لول لو ام لا مانام ييب صح اي قصص قصص لا يسيم ا آه، في مو ام بن بوين بن في سولينه موي نه رانان جي نمو ديمه آه، ا مانام دوني يننتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا نيو بيت المقدس جيت فوفو يننتي با بار ا صصا دوغ ييب voilà loolu ñu bari ci borom koo xam ne noonu lañ koy nettalee loolu dafa si moo gën a siiw mais du loolu mooy li wér li mooy ne yonent bi sallallahu dafa ñëw baytul maqdis fa lañ takk alburaq après ñuy ràññaan mook Seydina Jibril alayhi salaam ñu yéeg dem ñu yéeg biñ demee fekk nañ fi yonent bu ne moom sallallahu alayhi comme la al-Hafiz Ibn Kathir wax rahimahullah parce que dañu te wax du am solo la yaluwul maanaa mu gis leen baytul maqdis ba ñu jiite leen ba noppi kenn fu ci nekk mu gis la après mu wàcc di di ah, ah, mu dem ci asamaan si di laaj kii kan la ñu ko kii Adama la kii kan la ñu naan ko kii euh, Ibrahima la wala Moussa la maanaam loolu yenuwul maanaam li yenu maanaam mooy daf leen a xàmmee maanaam bi mu yéegee ci asamaan si la leen gis ba xàmmee leen ba pare moo tax bi mu wàccaatee di leen jiite julli laajul jor jotul suuf muy laaj kii mooy kan kii mooy kan kii mooy kan waaw loolu jaratul woon a laaj beneen bi ci des moom mooy ni julli la doon jëli ji maanaam mu dem jëli ko ba pare doog a ñëw jiite leen moo gën a yaanu maanaa que mu jiite ba pare doog a dem di ko jëli ji tamit mu nekkaat beneen maanaa waaye liñ ci jublu kon moom mooy ne lu yeneen ci yooyu alayhi salaam dañoo nekk ndaw fu bëri en temps loolu moom moo indi mbir mi. amma rasulullahi nag sallallahu alayhi wa sallam ndaal dawal yàlla saa sa fa lawoo ñel na ko wax dawoo moom kese xususiyatan ak jagle am na benn mbir boo xam ne moo ko jagoo ndax mooy la moo innahu nag moom ilaahiyun koduk yàlla la kulluhu lépp lépp ci moom tout temps lui est divin falaysa amul fii ci moom shay'un dara dara dara dara li xayrillaahi lu bokk loo xam te ne ñeel na leneen lu dul yàlla taala aji kawe ji ruuxan ruuxam wa jisman ak jëmmam maanaam yeneen yeneen ci yàlla sa sam seen jëmm seen ruux moom moo mel noonu mais seen jëmm melu noonu yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam comme léppam yàlla la léppam yàlla ko moom amul lenn partie ci moom loo xamante ne nekkul nekkalul yàlla amul léppam yàlla la nekkal ruux ak jëmmam xalqan jëm ji maanaam mbindam wa xuluqan ak jikkoom lépp dafa yàlla we kon nag fa ruuxu moo tax ruuxam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa jismuhu ak jëmmam ñoom jami an mboolem seen xarajaa génn nañ min al ah, min al itlaq ci al itlaq ci luñ joxe lañ ne alaa taraahu alaa tara benn xanaa gisoo taxaarata dam laabug deretam wa bawli yi ak mbéewalam maanaam bu tuuree ndox wa wa xataa yi ak dem àllam sallallahu alayhi wasallam wa xataa hmm? yi yenent bi sallallahu alayhi deretam maanaam deret dem àll tuur ndox ñett yi sobe lañ ci nit ba mu des ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci nodd bàyyi dafa mu ne qaala al qaadi Iyaad al qaadi Iyaad ibn Muusaa rahimahullah fi l baab saani ci ñaareelu buntu min kitaabi shifaa bi taarifi xuquuqi al Mustafaa sallallahu alayhi wa sallam téeram boobu ah shifaa mu ne xakaa nettal na baadul moo tax ni na ci ñiy toppatoo ñiy yittee bi axbaar yi ci ay xabaar boo samaadi ak i jikko moom yenente bi sallallahu alayhi wa ko annahu kaana nekkoon na iza arada su nammee an yataxawata ci euh, dem àll inshaqat day xar al ardu suuf si fabtalaat bu ko defee mu daal di wanaasu ak gataahu ah, euh, dem àll wa bawlahu ak tuur ndoxam wa faaxat bu ko defee mu daal di bell maanaam mu daal di li zalika ñeel ko raihatan mu daal di gilli walla gilli foofa mu gilli li zalika ñeel lool raihatan ak xet go xam tayyibatan bu sel la sallallahu alayhi wasallam wasna da te jokkale na jo jo càllale jël na càllale Muhammad ibn Sa'd rahimahullah kitabul waqidi maanaam wa asna la da askanle la wala voilà foofu loolu teg Muhammad ibn Sa'd kitabul waqidi kitabul waqidi fi bu al waqidi fi hada ci ci li xabaran ab khabar an ummul mu'minin bu jeul sayyidat ummul mu'minin radiyallahu anha Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat ne mom neena waxna wax na li nabi ñeel yonent sallallahu innaka naka yow de taati da ngay dikki al wana ko falaa naraate du ñu gis duñu gis min ko ci tukke ci yow an dara min al aza ci sobe fa qala mom yentib bi sallallahu alayhi wasallam mu ne Aisha yow sa dara Aisha radiyallahu aw ma alimta xanaa xamoo ne al arda naka yeneen naka suuf tabbu talio day wanaasu ma lépp lo xamne ne yaxruju day génn min al anbiya ci yenente yi alayhi salaam falaa yuraat duñu gis minhu ci mom shay'un dara wa hadha al khabar bi khabar wa in lam yakun donte nekul mashhuran du siw faqad deug deug qala waxna qawmun ay nit min ahli al ilm ci borom xam-xam bi taharatayn bi taharati ci lab hadhayn al hadithayn hadiisayni haada haadayni al hadathayn nyaay sobe yi minhu ci tukki ci mom yenenti sallallahu alayhi wasallam woo te li qawl wax la ci ba'du ashaabi Shaafi'i ci len ci wa manam ñi ànd ak mom Shaafi'i moy sahabe moy Shaafi'i wa shaahid wa shaahidu haadha te lii seede loolu maanaam boo euh te te du du du Shaafi'i rek boko wax manam borom xam-xam yu bari wax nañ ko manam euh daanaka am ci yoo xam ne moom la ci ne borom xam-xam ne loolu du sobe ci Yonent bi alayhi wasallam wa shaahidu haadha te lii seede lii annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yakun nekkul minhu ci moom ah doonutoon nekk ci moom shay'un dara yukrahu lu ñuy sib wala ghayru tayyibin wala boog loo xam ne du wala lu tey amul. wa minhu te bokk na ci loolu lii leeral loolu xadiisu Ali sayyidina Ali karamallahu wajhahu xadiisam bi mu ne xasaltu raxas naa ah, ah, sang naa annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa zahabtu may ma dem anzur di xool maa yakunu lii xew minal mayti ci ci mbir. maanaam mooy nit ku ku génn àdduna maam ci néew boog astaghfirullah ku nit ci néew falam ajit te gisuma sey an dara faqultu ma ni ko tay yow de teey nga xayyant bi ngay dund wa maytan ak bi nga bi nga bi nga bi nga nekkee bi nga génnee àdduna qaala nee na wasataat muy muy bell muy jolle minhu ci moom reexut reexun ak xet tayibatun gu gu teey lam najit musuñoo gis misluha kemuk loolu xattu mukk musuñoo gis xet gu mel noonu bi yonent bi sallallahu alayhi àdduna bañ sangu koo pare xet gi doon génnee ci moom wa mislahu te lu mel nii xaala wax na ko Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wax na ko xab bala bi nga xamante ne moom la fóonoon annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba'da mawtu yi ginnaaw faatoo loolu tamit la ko wax tëb tahayyan wa maytan dëgg dëgg teey nga bi ngay dund ak bi nga génnee àdduna maanaam ngir xet gi gi mu gi euh, ci moom sallallahu alayhi te bokk na ci liy wane lii tamit mooy ne shariba Malik ibn Sinan euh, radiyallahu anhu maanaam naan na damahu deretu yenente bi sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud bisu Uhud wa massahu mu daal di koy mac iyaahu moom ah maanaam wa massahu aku maccam iyaahu moom ah wa taswiru ak daganal gam ko daganal sallallahu alayhi wasallam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam loola la ñeel ko loolu tamit amoon na mooy mooy maanaam naan bi mu naan deret yent bi sallallahu alayhi ak macc gi mu ko macc yent bi sallallahu alayhi wasallam wan ko ne li nga def nii lu baax la te bu doon sobe la deret yent bi sallallahu alayhi wasallam su doon sobe la du mën a euh, mu wax la ñeel ko ko lan tusiba ne du ko laal safara maanaam ne safara doot parce que mu naan deret yent bi sallallahu alayhi bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom jeex na c'est fini safara mënatu ko laal wa misloo te lu mel nii tamit amoon na shariba naan na Abdullah ibn Zubayr mu ibn Awwam radiyallahu anhu radiyallahu anhu dama deretu xijaamati yi gàjjoom moom yonent bi sallallahu bi mu gàjjoom mooy def ventouse ba pare jox ko sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ne ko demal nga lan nga sànni ko nga tuur ko mu dem naan ko dellu si mu ne ko tuur nga ko mu ne ko waaw mu ne ko foo mu ko sama biir fa qaala yenente bi sallallahu alayhi ne ko waylun laka minan nas wa waylun lahum minka waylun taskare la minan nas ci nit ñi wa waylun ñeel na la minka ci yow maanaam mooy ku la laal rek moom faw musiba dal que doon na ko li la mais di wax na naxwan lu mel ni min ci lu mel nii anhu ci moom fimraatin ci jigéen boo xamante ne sharibat naanoon na bawlahu ak mbéewalam sallallahu alayhi wasallam maanaam pour sayyidat ummu aymana radiyallahu anha ah comme moom Nasaa'i solo na ko ñoom Tabaraani ñooñu maam mu naa ne ah, yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam dafa amoon pot chambre bi mu ci tuuree ndox sayyidat ummu aymana radiyallahu anha naan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ana li nekkoon fii ku ku mu ne ko dama koo naan mu ne ko <laughs> mu ne ko yow dootu amati feebaru biir. mooy ah, moo tax fa xaalam wax laa ñal ko lan tashtaki dootoo jàmbate mukk batt na batt na ki sa biir abadan mukk walam ya'mur te digalul waahidan kenn minum ci ñoom bi ghasli famin ci mu raxas gémminam maanaam li si reste raxasal sa gémmin parce li nga laal sobe la loolu wax ku kenn ci ñoom loolu it day teg la ne jëm moom sallallahu alayhi wasallam amul lenn ci sobe parce que léppam yàlla dafa yàlla we leer la wala naxaawu te terewu ko tamit an awdatin ci bu baabuwaat loolu maanaam néewu ko bu bu ko defet que su lu ñuy tere la lu ñu soo danaa ko waaw waaw waaw waaw mais bu beneen yoonee bu ko def dégg mais di wax ko loolu amul kenn ku mu ci wax loolu wa xadiisu haazil mara te xadiisu waa ndaw si jigéen si allati ki nga xamante ne am na xadiis jigéen si allati bi nga xam ne sharibat dafa naanoon bawloo mbéewul yent bi sallallahu alayhi wasallam ak tuur ndoxam صحيح لو ورنا الزم سخل ما سخلنا الدار قطني مسلم المسلم البخاري امام البخاري اخراجه نتي نيغني كو في صحيح في صحيح امام البخاري امام مسلم جيني ونكو في صحيح مي امام الدار قطني داني لان موتاخ جيني ون حديث بوم مانام لولو وزن هذه المركه مانام جيجن سي نمتو دون موي بركه موي امو ايمنه رضي الله عنها وقت لفا ووتي نانيو نا في نسبها تي اسكنم وخيل واخنا ني هي موم ام ايمن لا رضي الله عنها وكانت نيكون تخدم دون ليغيال النبي ينت صلى الله عليه وسلم قالت ننا وكان نيلون نا نيكون لي رسول الله نيل ينت بي صلى الله عليه وسلم قدحن اك بوت اما نك من عيدان بو خمني تي بانت لنجكاي دفر يوضع نوكو دان ديف موكو دان تك نك داف نك دان تك تحت سريره ci soufa lalam yabulu daan tuur ndox fii ci moom mi na lay di ci guddi gi loolu mooy pot sàmm fa baala mu daal ci tuur ndox fii lay na ci guddi su ma topp nag iftaqadahu mu di ko wër fa lam yajid te dajul fii ci moom shay'an dara mu xool ne ne gisul ci dara fa sa'ala mu laaj barakata maanaam euh, baraka anhu ci moom fa qaalat mu ne ko qumtu dama jóg wa ana fekk man aktshana dama maroon fa sharibtuhu ma naan ko wa ana te fekkoon man la a'lamu xawma Hmm? rawaa xadiisuha maanaam rawaa solo na xadiisuha xadiis bi ibnu Jurayj mooy Abdul ma ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj wa ghayruhu ak keneen ku moom rahmatullah alal jamii maanaam yëpp day dëgëral mooy waxoon nañ la ko ne moom Nasaa'i solo na ko moom Sabaraani solo na ko ak ñeneen rahmatullah alayhi maanaam yëpp dañuy dëgëral nga xamante ne moom mooy maanaam bi bi muy dund fii mais yeneen bi daal wax dëgg yàlla salaa alayhi moom léppam lan la dafa laab waaw dafa yàlla we mu ne alaa tara xanaa gisoo muy beneen point anna allah naka buur yàlla taalaa ji kaw ji wasafahu melale na ko moom yenente bi saa sallam fil qur'aan ci alqur'aan bi annahu ne moom yenente bi saa sallam nuurul leer la haythu qaala fa mu waxee moom taalaa aji kaw ji anhu di wax ci mbir yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yaa ahlal kitaab yi ay yéen ñi nga ne yéen lañ joxoon téere téere bi muy ahlul kitaab ah yéen ñi takkoog téere bi maam yéen ñi xam ne yéen lañ tegoon seen loxo téere bi kat dëgg-dëgg jaa akum dikkale leen dikkee na leen rasuluna suñu yenent yu bayyinu sallallahu alayhi wa sallam moom wa waa kitaab maanaam comme si dana ni lan moo leen téere tuub yéen yor ngeen téere téere boobu jàngoon ngeen ci ne yent yàlla Muhammad dana ñëw sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen ku ko gis ku ne dana xam ne waajaa ngi kii lañ kii la kii la al euh, téere bi doon wax tawraat ak injil kii lañ daan wax fu tawraat moom la daan wax ne moom mooy ñëw mais lan moo leen ngeen gëm ko te moom bi mu dikkee yu bayyinu da bi ngi leeral lakum ñeel leen kasiiran lu baree bare mi maa ci loo xam ne kuntum nekkoon ngeen toog fuuna doon ko nëbb mi neen kitaab bi ci téere bi mm-hmm. bëri yoon doon nëbb ci bi bi mu ñëwee indi na ko génn na ko leeral na ko wayaafu te jéggale na an kasiiran lu bari maanaam mooy bàyyi ne lu bari yoo xam te ne waxu ci dara xat mm-hmm. dëgg-dëgg jaa akum dikk na leen minallaahi ci tukkee ci yàlla nuurun leer wa kitaabun ak téere mu biinun bu biir leer ak téere bu biir maanaam buy leeral lépp léegi mu ne euh, kon bi gis ci jëmmam aw wala boog bi ruux yi ci ruuxam fu woo moom lii daal bi nastul aaya ci le ci aaya bi aaya bi lu mu leere wax na ne moom nuurun leer la kulluhu lépp sallallahu alayhi Euh, maanaam lan la maanaam lan la nekkee dalil fii moom mooy qaa'ida bi ne al atfu yaqtadil mughaayara al atfu yaqtadil mughaayara foo gisee conjonction de coordination li muy tegtale maanaam ci cosaan bien sûr mooy ak wuute mooy ak bu ma nee euh, Samba ak Demba ñëw nañ maanaam fi mu bu kenn nit ñëw ma ne la nga ñëw tese ki gis kenn rek daal ne ko mais man kenn nit rek laa fi gis man la mais yow Samba mooy Demba maanaam bu boobaa da ngay jàpp ne sama wax ji jubutoon parce que waroo woon ne Samba ak Demba ñëw nañ ah <laughs> voilà <laughs> maanaam ndax. ak fu bi ma def maanaam conjonction de coordination bi ma ci teg voilà bu ma nee la diw de baaxul waaye diw moom ku baax la waaw ma tudd ñaari waaye diw de ku loolu li ñu tekki moom mooy ñaar ñooñ bokkuñ parce que waaye gi ma def ci diggante bi moo tax waaye gi ah voilà ak yeneen maanaam faaw ñu wute maanaam bu ma dugalee connexion de de de rek faaw lool li muy teg sa mooy léeg dañoo wute mais loolu ci cosaan la. wa war a doon te rot naa ànd ci moom yeneen bi sax kon bu dee nuurul leer dikk na ci yéen mooy al bi sa sa wa kitaabu mubiin a doon moom yeneen bi sax salaam annahu na wax fii du'a yi ci ñaanam bi waj'alnii nuuran def ma leer. manam def ma man ma nekk leer te xam nañ ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du ñaan lu lu ko yàlla joxut maanaam maanaam mooy maanaam moom mu wax benn information ak mu ñaan ko benn la maanaam mu ñaan dara ak mu joxe ko comme ada une information benn la <laughs> yàlla na nga dem àjjana ku ko yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam maanaam jëm mooy jëm ni wala ne mu waaji day dem àjjana <laughs> <laughs> maanaam duñ ne noo da koo ñaan rek xamuñ ci dara déedéet maanaam loolu <laughs> eh, loolu tamit daa bokk ci mais loolu nag ay évidence la mais ci jullit maanaam ci jullit évidence la ci ku dul jullit sax mun na bañ a kii waaye ab jullit moom xam na ne lii moo wax ni évidence la <laughs> dégg kon ñaan googu ne ma akhrajahu muslim imam muslim an ibn abbas radiyallahu anhu bi riwayat برواية النضر moom ci an nadr an Shu'ba ah kaza naka noonu mooy nadr ibn an Shu'ba moy ibn hajjaj kaza naka noonu rawa solo nag Ahmad fi musnad yi ci musnad wa Abu awana wa Tayaalisi ñom ñep an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma manam kon yentibi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu mooy comme li yentibi comme bu borom bi subhaanahu wa ta'aala di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal maanaam ñun mënuñu ne bon yàlla gis nañ ci alxuraan yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangam mais ñun gisuñu luy wane bi def na ko maanaam loolu ñun mënatuñ wax hmm? loolu mënatuñ koo wax lépp ñu gis ci alxuraan ne yàlla nee na yonent bi def ko rek maanaam ñun jarul ñu laaj ndax yonent bi def na ko waaw walla waaw parce que évidence la ay gisulu fu ko defee ay ci yooyu yëpp jaratu la laaj yooyu ay layu caaxaan la kon yeneen ci saa saa fii tamit bu ñaanee noonu la maanaam kon loolu mooy ne moom ci boppam leer la lisa lii moo tax faqat saxa wir na annahu naka moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na koo xam ne sallallahu alayhi la yura donu won gis la ko ñal ko zillun ker wo fek mom yasir muy dox di tukki di dox fil yawmil mushammas ci bis bo xamantene ne jant bi dafa genn jant bi maam bis bo xam dafa am jant mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dox te duñu gis mu am ker te loolu lenn rek moom mooy possibilité bi lenn rek mu mën ne moy ne dafa fekk ne mom saa sam dafa bindoo noo xamante ne yàlla dafa yéeme ndax dafa dajale ay contradiction ci moom maanaam nii dafa dafa jëmm la boo ko laalee di nga xam ne yaram nga laal mais malgré loolu mu am deret maanaam mu am lépp ci biir li nit di am mais ànd ak loolu yëpp mu def ko leer ci anam goo xamante ne leeram moom moo ëpp doole leeru jant bi moo tax amul takk leer sallallahu alayhi muy wax ci nodd bari bari mu ne rawaa Abdur Razzaq moom imaam Abdur Razzaq rahimahullah bi sanadi ci càllanam an Ibnu Jurayj wa huwa thiqa Ibnu Jurayj thiqal an Naafi' Naafi' wa huwa thiqa jarul laaj an Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala nee na lam yakun nekkut woon li Rasulullah ñel yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam zillun ker yenent bi amul woon ker walam yaqum te doon toon taxaw ma shamsin ànd ak jant xatt mukk mukk illaa lu dul xalaba doon na noot daw uhu leeram daw ak shamsi leeru jant bi walam yaqum te doon toon taxaw ma siraajin di ànd ak làmp maanaam waloolu ma nga ne jant bi rek la mais amul làmp bu daan nekk ci wetam sallallahu alayhi wasallam xatt mukk illaa lu dul xalaba doon na noot daw uhu leeram daw ak siraajin leeru làmp ba wa hadha al hadith bu nekk càllale hadith bi isnaaduhu saxiix càllaleem wér na ndax du Abdur Razzaq la ñuy tuumaal imaam bi du Ibn Jurayj la ñuy tuumaal du Naafi' la tuumaal waxuma la ak Seydina Abdullah ibn Abbas moom moom moom moom waxaale wuñ maanaam ñii dañoo weesu sax baatu siqa non voilà parce que ñoom ci seen bopp ñoom ñoo war a wax ndax ci siqa la waaw wala déet mais du ñoom lañ war a wax siqa la naa feex kenn du laaj maam kenn du wax ñoom ñoom la la ci dana laa ni laaj seeni mbir hmm? mu ne wa kat deug deug nak saqa rotna rotalna manam saqa moy indina manam indina na maanaam indi na hada al xadis bi la xadis alxaafiz suyuti moy imam rahmalahu bu siw bi fi kitab ci téeréem boobu mu tuddee al khasa'is al kubra jagle yu mak yi mu def ci yi mu wan ni yeneen ci saa mom la jago bi lax ci kaddu ne anna rasulullah naka ndawal yalla ne sallallahu alayhi wasallam lam yakun nekuton la woo ñeel ko zillun ker fi shamsin bu ci jant wala qamaran bu caageen wer kon nak fa rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yent yalla bi sallallahu alayhi wasallam usriya bihi rañane nañ ko bi ruhi ci ruh mo jismi ak jëmmam wa ma'a zalika ànd ak loolu fa law dakhala su duggon ad dakhilu aji dugg haythu fa nga xamne fa la nekkon firashuhu sallallahu alayhi wasallam manam lalam fa mu ne sallallahu alayhi wasallam la raahu doon ko gis naa iman muy adina raw makaanahu bërëbam kon fa fil laxtati ci même jamono allati bi nga xamne huwa mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci jamono joju sallallahu alayhi wasallam fi baytul muqaddas moy mi ngi ci baytul aw fi samawaati wala ci asamaan yi ruuxam nekk ci ruuxam wa jisman ak jëmmam huwa moom aydan ba tey fii firaash yi mi ngi ci lalam ruuxan ci ruuxam mu des man ak jëmmam maanaam mooy mooy lan exactement parce que xayaalam dafa am doole lan voilà maanaam xayaalam dafa ëpp doole euh, moom lañ doon wax ci maari ji ci ban la م? أه سبحان الله yaakaar naa albadiahu non non déedéet al aliyu aliyu voilà si ala voilà yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa am duplicité boobu multiplicité boobu maanaam le fait que tey ci ruuxam ak jëmmam nag yonent bi sallallahu alayhi mën a rañaan rañaan googu mu rañaan mu toog tëdd ci lalam d'ailleurs loolu point la bu mat a bàyyi xel bu mat a souligner saxaaba yi radiyallahu anhum wuute gi ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax euh, gis na yàlla wala gisu ko maanaa bi loolu kese la ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne gis na ko ci gént Euh, rañaan gi xew gi mu xew ci jëmmam ak ruuxam tamit lii rek ko indi maanaam ne yeneen bi sallallahu comme que ni mu tëddee nii en même temps ñu ngi woon baytul maqdis <laughs> rañaan en même temps yéeg na ci asamaan ah? mais noonu la en fait xaqiiqa yeneen bi sallallahu noonu la mel voilà wala moy comme ñu wax ci ci bi wa man khassahu fi laylatin fa huwa jahil ku jagleel mbir mi ni guddii rek la amé manam benn guddii kessé nga japp né rañaan gi guddii googu rek la am c'est parce que xamuloo yeneen bi sallallahu musul deñ ki di nekk ci rañaan manam li ni événement la rek bu spécifique bu amone bo xamantene day mandar gal nan la yeneen bi mel naka jek sallallahu alayhi wasallam naka réellement mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam naka jek mi ngi ci goxi asamaan yi ak suuf si en même temps que mu nekk ak ñun en même temps te loolu tey na wàllu gën a ay comme ni ko wolof yi di waxe maanaam ni muy mën a nekk ndoog ñun noonu la mën a nekk ndoog ñeneen nekk ndoog ñeneen feneen ak nekk ndoog ñeneen ay junni junni nit mën nañ ko gisandoo ci gént wala ñu gisandoo ko nii ci ay gox yu wuute te du wa te te changé wul dara naka noonu ay junni junni nit mën nañu deewandoo ñu robandoo leen ci ay gox yu wuute te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daa iman te lool bi muy dund la doon wax ne amul kenn kuy génn àdduna lu ko robee xadis mi ngi ci Sahih Bukhari amul kenn kuy dund ku ñuy kuy ku ku génn àdduna lu dul buñ ko robee dinañ ko indi danañ ma indi man teg ko teg ko sama kanam teg ne est que lan nga wax maa taqulu fi hadha rajul lan nga wax ci waa ji selon réponse bi muy am ci kan mooy yenent bi sallallahu alayhi ci lay texee mbaa mu texe bi te amul kenn kuy dee lu dul dinañ la teg ci épreuve boobu waa léegi ay junni nit bu ñu deewandoowee ci ay ti ci ay gox yu wuute day teewandoo fépp maanaam te te loolu bi muy dund nekk Madina la ko doon wax maanaam mi ngi woon foofu mu ngi woon fële mi ngi ci bàmmeel yëpp en même temps maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa amul fenn fenn maam yéen loolu foo ñu comprendre ko ci ci yeneen sallallahu alayhi wasallam maam loolu boo comprendre yeneen masala yi ñuy wax yëpp masala gone lay doon ci yow maam yëpp xale la daal di voy ndax mën nañ koo gis ndax duñ ko kii wak yooyu en fait fu ñu koy werantee sax yow da daal di commencer noonu lépp sa bagage dem seet di leneen loo def lu la ëppal solo

maanaam riiri bu bu fort la bu profond la quoi boo xamante ne vraiment li gën a basique ci ay ci ci ci ci màggaayam moom la ñuy ñëw di werante voilà di ci dute voilà fi mu toll yi ñu fi jot a wax yëpp xattaa yi nga xamante ne xadiis yi dëgëral nañ ko sax maanaam da ngay gis ci dina ci gis ay jullit ñoo xam ne dinañ taxaw di dute ndax loolu mën na nekk ku dëgg wala déet oui non mais est-ce que c'est vrai que deret Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sobe la wala du sobe parce que quand même est-ce que loolu am dalil est-ce que nangam mais non loolu am na yoo xam dalil maanaam kii moo kii Yonent Yàlla ya Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mais nag après après ki koy latte di ko réclamer tamit mënoo ko ŋaañee parce que dafa bëgg dëgg mënoo ko ŋaañee parce que dafa bëgg dëgg mais nag c'est dommage que maanaam niveau tollu foofu ci sallallahu alayhi wa sallam loolu c'est dommage parce que daf koy xañ lu bëree bëri daf koy xañ lu bëree bëri bëri ci voilà ci ci ci ci nu mu waroon a considérer yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mais aussi euh, maam loolu njariñ gi mu naroon gi mu ko naroon a jural voilà yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ñuy rañaan ba muy rañaan jugul jugul fii. dem fële demewut noonu déedéet maanaam daa nekk fii nekk fee loolu la te lool nag xaqiqa la boo xam ne musta dañ moo tax boo nee boo jàppee ni ci benn guddi la xewee rek noonu du guddi googu dafa symbolique kese mu nettali li xew du parce que dafa symbolique kese mais waxuma la moom waxuma la moom de mais ay ndongoom sallallahu alayhi wasallam ay ndongoom dañuy def rañaan googu maanaam moom mais ay ndongoom dañ koy def voilà dangay gis Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu muy nettali moom rañaanam bi mu ko defee ni mu taseel muy waxtaan ak ñoom nangam nangam ku mel ni Cheikh Abdul Karim al-Jili radiyallahu da ngay gis muy nettali bi muy rañ Sayyid al-Harazim radiyallahu da ngay gis muy nettali moom tamit ay rañaanam bi mu ko defee nangam nangam loolu loolu c'est basique ci en ci ab Muhammad yi bu mat day def rañaan boobu def rañaan boobu sauf que sauf que euh, ni ko yenent bi sallallahu alayhi a defe ñoom mënuñu ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam da koo benn moment maam da caa ne daa iman alors que ñeneen ñi da day nekk benn expérience spirituelle bu ñu dund voilà benn expérience spirituelle bu ñu dund nga xam ne dañuy taseeg ay yenente alayhi salaam di ci kii léeg-léeg sax mu nekk benn événement bu ndaw boo xam ne ci benn tiers lay xewe ci benn tiers lay xewe loo xamante ne cette expérience bi ñu ci dund maam lañ cay jàngate lañ cay xame mais day day day day day day nekk ay milliards yi milliards yi années maanaam buñ toogoon bi àdduna bi tàmbalee ba yow mal xiyaamati di am buñ bëggoon a nettali jàngat lañ ca xame buñ ko mën nettali <laughs> voilà comme si Abdou Karim al doon wax radiyallahu anhu ne man benn Cees boobu dund naa ko dund naa ko ba nga ngi yàlla wan ma secret yi nekk ci asamaan yi ci suuf si ci kii nag maanaam aras gannaaw aras li lépp yëpp yëpp yëpp yëpp moom ci loo xamante ne daanaka ci xefe xippi lay toll mais bi ma ci yeewoo ci ci ci expérience boobu bi ma ci kiiwaatee mais su ma toogoon fi bi àdduna tàmbale ba àdduna di tukki bu ma bëggee nettali la ma xam-xam yi xam yi yàlla dëxëñ ci suufam si ci asamaanam si ci ci ci jant bi ci weer bi ci yeneen ak yeneen du du ma ko mun nettali ak ñi ci dund yëpp voilà maa ngi gis tamit ci kitaabul sirrul akbar euh, wa nuurul abhar Cheikh Ibrahima Niass di nettal lu mel noonu radiyallahu anhu mu ne dafa dafa am benn moment bu mu dund boo xamante ne lu tolloog lu ñu mën a jullee safa witar kese la daanaka daf ci comme genre perte de conscience la ci am mais bi mu ci yeewoo moment boobu maanaam en fait dafa duggu ci xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci moment bu gàtt boobu mais bi mu bi mu ci bi mu amaatee effet bi quoi maanaam conscience bi mais mu ne période boobu noonu fekk na ne maanaam c'est comme si après la rendre compte que ni période bu gàtt la mais moment bi mu ci nekkee ay milliards yi milliards yi milliards yi année la woon ay milliards année la dund foofu ndekete après bi mu maanaam bi mu conscient wee après ci la comprendre que en fait période bi période boobu ñun ci suñu àdduna bi li mu fi li mu fi tollool mooy rek <laughs> diggante rek kuy julli fii fekk ci géeju xaqatu muhammadiya ci géeju yent bi sallallahu alayhi wasallam yu wéeteeg boroomam ak yooyu maam géej googu la duggoon ay mbir la yoo xamante ne ay ay xaqaayiq la ay réalité la loo xam ne maam liñ ci jublu mooy ne waxuma la yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam non yenent bi dañ kaa jëlale mais ay ndongoom laay wax ñooy dundoo te wax sax wér na de anu tukkee ci moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anna wa qaala naka nee na man ra'aani ku ma gis fil manaami ci gént fa sa yaraani dama ma gis fil yaqazati ci jàkkaarloo ci jébéer ci yow sallallahu alayhi wa sallam te xadis boobu rawaahul Buxaari soloo na ko imaam Buxaari soloo na ko Muslim ak Muslim Abu Daawud wa Ahmad wal Bayhaqi fi dalalati dalal bu an-Nubuwwa fi Musnad ash-Shaamiyyiin wal Laalakaa'i tab solo na ibn al Muqri nun nib al Abi hurairah radiyallahu anhu wa Tabaraani fil Kabiir an malik ibn Abdullah al khasami radiyallahu anhu ñu yam foofu inshallah Allah beneen wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yow ñu ne boobu koy wax julli wu ci yow. si yaa ngi julli moom. yow ah, yaa ngi julli moom. parce que justement yàlla parce que yeneen simplement yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yàlla def ni ñu nañ julli ci moom mais moom yeneen bi ci boppam suy julli ci ci boppam danaan allahumma salli moom yenente bi ci boppam loolu lay wax te salaatu faatiha par exemple moom la mel allahumma salli te salaatu faatiha kalaamul xadim la kalaamu ilaahi xadim la kàddu yàlla la maanaam c'est parce que ñun noonu la ñuy jullee maanaam imaginer parce que bu buñ jàppee ni ñun julli wuñ ci yenente bi rek salaasam xam nga lan lay tekki li muy tekki mooy ne yàlla daf ñoo digal lu mënte ne te loolu mënul ne tamit voilà c'est comme si maanaam c'est parce que ñun bu ñuy julli façon bi la ñuy jullee malaaka yi suñuy julli mu am façon bu ñuy jullee maanaam mooy loolu quoi mooy allahumma salli comme li salaat fatiha salaatu ala nabi bëri nañ ay façon mais bu ma nee sallallahu alayhi wa sallam bu ma nee wala bu ma nee wa usalli wa usallim ala xayri xalqillahi loolu loolu maa ngi julli di sëlmal ci yeneen bi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa la julli na wala du julli exactement mais man bu ma nee yàlla yow yàlla jullil ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu julli man mais yonent bi sallallahu alayhi nan la daan jullee ci boppam xam nga ah allahumma salli ala waaw maanaam moom bu daan taaya moom bu daan taaya nan la war def bu paree lu muy wax voilà maanaam surtout loolu tamit il faut que ñu kii ko maanaam yeneen ci bis la maanaam li nga xamante ne noonu la ñun par exemple bu ñuy julli comme alxuraan la kullu qad alima salaatahu wa tasbiihahu lu nekk xam na ni muy sa sàbbaane sàbbaane ak julli parce que maanaam wala sujjóotu ne yàlla lépp da koo sujjóotu ni ñuy ni garab yi euh, ni ñu muy sujjóotu ñu ñuy du benn te pourtant yàlla nee na ñëpp mu ngi sujjóotu maanaam ñun ni ñu mën a defee salaatu ala nabi mooy ñu forme bii lañ ko mën a defee loolu moom mooy def nañ moo tax yeneen bi saa ne ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci fukki yoon xadis boobu yeneen xadis yi ci man bu fekkente ne loolu amul mënta ne kon waaw waaw waaw loolu loolu kalimatu baatin la quoi maanaam waxu caaxaan la maanaam ah, parce que loolu c'est si nit da nga yàlla daf ñuy wax ne def leen loo xam ne dëkk ci kaw loo xamante ne mën na ne rawatina ne rawatina ne julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam farata la benn yoon bi bu ko ko deful da ngay def safara ku dund ba dee te julliwul ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon day def safara voilà voilà léegi loo xamante ne moom man ne maanaam boo ko defee maanaam maanaam mënoo ko mënoo ko ba pare ñu ne la il faut nga def ko benn yoon te dul te mënoo ko. non dama ko